bu teguwul ci yoon rek nekk dans le désordre Ousmane Sonko déjà il est accusé de viol. Mhm. kuñ ko jiiñoon yaa ngi ci kaso bi. je te donne le cas de Sitor Ndour. je te donne le cas de d'autres ñu ngi ci kaso bi. bari na yow indi nga jël xale yi def leen des chairs ak kano mooy def leen bouclier di leen utiliser ñii ñu dagg seen tànk ñii ñu rey leen mais loolu waroon na def euh, benn dellu gannaaw ndax loolu. mais nga gën a persister chaque jour di woote dama ne il faut que l'État prenne ses responsabilités et prendre ses responsabilités mooy jël Ousmane Sonko dugal ko ci kaso bi. ah oui. est-ce que vous mesurez. mais mais ko jàppee. oui mais sauf que. Karim mais Sonko il fait pire que Karim. Khouroukha mooy euh, l'État xëy na ñu nekk au sommet. am na yu ñu xam yoo xam ne moo tax ñu doxalee nii. sëñ bi Ousmane Sonko le Sénégal c'est un État. oui état état nekkul lu tuuti. les conséquences xam il faut gars yi comprendre. oui c'est am na loo xam ne euh, xam nga ko euh, béy euh, par rapport ak conséquences yi amoon le trois xam le 4 mars 2021. mais bu waree am mu am. biñ ko jàppee yóbbu ko état da ko jar. 14 mois yi fa la tàmbalee woon. dama ne état da ko jar ku bëgg a jaay sa bakkan ci mbedd bi nga dem jaay ko xam nga nag on ne peut pas laisser les gens ñu taal ay boutique gu jàmm. maanaam ak lu mu mënta jur ci victime Sonko dañ ko war a jàpp. mais yow sénégalais yi defar seen station. d'essence. rien ne la def ci seen alal ñu koy lakk fan lañ ko teg. teguñu ko fenn. sénégalais bi nekk ci kii bi di jaay portable am ñu ñëw dugg vandaliser portable am fan lañ ko teg mais mais Mamadou Awa alal lu jàmbur yi ñuy yàq sénégalais yi amoon liggéey dans des grandes surfaces yu mel ni yi yu ñëpp xam. Mhm. Sénégal ñooñu ñëw Sénégal yombalal ñu lu bëre te ay sénégalais nekk ci sax ay actionnaires parce que Auchan la tudd da koy lakk. donc il il appelle à la haine moom ak son al son acolyte mooy kan mooy Guy Marius Sagna qu'on connaît très bien c'est un homme très violent mais nag il faut que état jël ses responsabilités maintenant Ousmane Sonko. Guy Marius Sagna ban signe de violence la la wane. non ci la à chaque fois quand yi quand yi gis nga ko assemblée mu ñëw ci gis nga ko mu sempi micro day songe day xeex song na ay policiers song na ay gendarmes man je n'ose pas le faire parce que tu sais ragaluma de ëpp ñu ma fit xamante nañu à l'université Guy Marius Sagna xam na ma dafa ma ëpp fit mais man dama sañul di poñe gendarme. est-ce que du ku ci nekk côté bi nga nekkee moo tax. ngay doxalee ni ngay su ma nekkoon opposant moi j'ai dirigé des mouvements de grève ànd nañu buntu bese BCEAO xale yi bëgg toj oto ADM man leen bu leen ko toj mais bus yi ñan ñoo ko moom mais bus yi c'est pour les sénégalais euh, BRT bi kan moo ko moom pour ñu dem di ko saccager mais Ousmane Sonko xamul jàmm. mais cette nouvelle forme d'opposition bi ñu xam. jékki-jékkiwul rek am Sénégal yàgg na nekk Sénégal on n'a jamais connu ça. waaw parce que c'est sous Macky c'est sous Macky Sall que ça a commencé. non je vais vous dire la réellement. non je vais vous dire. Mhm. dafa nekk gis nga quand comme un cheveu dans la soupe c'est ça Ousmane Sonko c'est un cheveu dans la soupe de la politique. yéen ko ci dëmbal. non c'est-à-dire que moom amul formation politique. xamul politique politique c'est pour gérer la cité. sauf que son discours. nit ñaa koy consommer. non ban consommer kii xale yi xale xam nga nag moo tax il faut que l' aussi il faut loolu dafay indiwaat beneen problématique. Mhm. mooy jàngal xale yi. il faut que état xoolaat enseignement bi xool qualité de l' enseignement xale yi bu ñu amoon les même formation que ñun mais ñu xam ne lan mooy institution lan mooy état maintenant. xale yi ils sont formés. mais loolu terewul terewul xeex xale yi ëpp emploi moo leen manqué boo seetloo euh, dem maa ngi wax ak benn grand nee na ma man j'ai mon commerce euh, du ma xëy di manifester parce que am naa ci lu ma jàpp. mais ñi nga xam ne ñooy gën di manifester à longueur de journée ñi nga xam ne amuñu dara loo xam ne teg nañ ko seen maanaam amuñu benn espoir. amuñu benn benn yaakaar non à la limite xale yi ma gis ñuy génn nekk ñu ay xale yu bare jàng à la limite. mais c'est des jeunes sans espoir non man li ma gis ay xale yu ndaw la ñu ah. il prend des jeunes def leen ay canaux à chair mais quand même même pour ça dañ ko ci war a porter plainte c'est-à-dire que il faut qu'il arrête moomul dëkk bi. mais dëkk bi fi nekk nii tànn. léegi nag ku ñu taal sa kër aussi est-ce que ça arrange les choses ma ne ku ñu taal sa kër nga dem taal seen kër. déedéet loolu du wax ku ñu dóor fetal nga non si. fan lan la ñu bëgg ñu jëf fan la ñu bëgg. ñu jëf vous ne devez pas parler comme ça. non j'ai dit dëkk bi dafa am yoon. mais léegi bu dee da nga dem yoon ñu ne duñu ñu wuy ji yoon ils sont au-dessus des lois ils menacent le juge ils insultent le préfet ils insultent le gouverneur te ñooñu muy saaga ay promotionnaire am lañu te ñoo ko daaxoon jàng sa à dire qu'il faut qu'on se respecte au-delà même ay aspect dàq jàng Ousmane Sonko dafa war a doon citoyen doon homme politique mais mais ñun euh, au début bi ñu koy gis dañ doon apprécier. beaucoup de choses. même état de l'autre côté. vous avez fait de lui ce qu'il est devenu. ne j'ai toujours dit tout a commencé ci radiation bi. je parle avant il était une force de proposition. oui je des excès quelque part. mais je dis moi je disais à mes amis de la suñuy waxtaan politique bàyyi leen jàmbur. Mhm. la liberté d'opinion mu politique mu dama ko gëm. mais li ma gis nii dafa ëpp. doole xam nga yaa ngi wax sànq. est devenu un monstre. xam ce pays. oui monstre la pour ce pays il faut